bokk yi gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam ba seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fas yéene fàttalante tey alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ tuuba mii fi nekk wax na ci muy alquran ak jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi ko jànkoonteel jamono yi ñu toll alquran mooy kan mooy ci lu gàtt ki nga xam ne bu ñu ko defoon jëmm mooy jenn jëmm ju fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi bañ fekk ko fi ñun mu mel na meloon na ñum mooy téere bi nga xam ne it buñ ko defoon jëmm day mel ne jullit bu xamut fu mu jëm su dee dox ci jant bi bu gëlëmee ba xamatut fu mu jëm ba jant bi soo mu ne na tëdd mooy làmp bu koy wan ne ko fii la dëkk bi nekk loolu kuréel ku ne soxla na ko bu guddi rawatina guddi gi waaye mooy ki nga xam ne it su ab jullit demee ba sës bu ca wéeroo kenn mënatu ko daaneel waaye moo daan xetti li gaaya buñ demee ba loxo dem gémmiñ te ab tib yóbbuwu ko ca mooy benn téere bi nga xam ne it li ko mokkal ci kaw suuf mukk luñ ko benn téere bu ñuy tudd ab téere ci kaw suuf te ñépp bokk nañ ko xamee mooy téere bi nga xam ne ku koy xool da nga ci xame loo xam ne ñàkk ko fekk téewut nga mën caa xam ba xam ke sax lu raw la ña fekke woon di xam waaye mooy téere bi ñuy wax itam bu ëllëgee ana luy xew te ki koy ki ñu koy wax ni mu xame le weesu li ci li ci kanam noonu la ko gën a leere mooy suñu borom tabaraka wa taala mooy téere bi nga xam ne it moo ñuy wax ñun suñu diggante ana luñ ca war a def kon bokk yi alxuraan du ay caaxaan du lu ñuy foyee ku dem a dem nag ba natt dooleem ba yéem ne kenn mënatu ko daan bu songee alxuraan dana xam ne as cuq lay as cuq lay doon ci ki muy bëreel waaye kuy seeti feneen fu fu muy wute ji lu koy wan nu muy jariñoo it njariñul àdduna kese kese it su fi wanee alxuraan gannaaw wuti feneen fu ko gën a gaaw yàlla du réeral kenn waaye yàlla da koy seetaan te sëriñ bi fi nekk sëriñ Tuubaa sëriñ Sidi Moxtaar nee na woon ku dugg ci ak boy taseeg boy ya ak gar ya yàlla nu ci yàlla musal waaye ku yàkkamti teraanga it ba wuti ko feneen fu dul ci alxuraan it day yéeg ba defe ne yéeg na ba àggal baras ci kuwaat di ko def ba ba muy toqi bàyyi waaye du ma sa dem fenn kon mooy buumu suñu borom gi muy wax ci alxuraan na ngeen ci mooy waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waaye alxuraan mooy siraatal mustaqim siraatal mustaqim nag yoon la woo xam ne jëm ca aajawut jël xaalis bu bari def ci sa jiba wala bu dee ko yor daamar mu sol essence bu fees bu bari sol yóbbaale jaru ko waaye siraatal mustaqim mooy déglu alxuraan rek ana fu mu dégle ak ak fu mu joxoñ rek mooy téere bi nga xam ne ku cay wax kuy wax naan alxuraan nee na doonte ñii muy waxal moomu ñu wax ja it ma ngay wax dëgg ndax wax jooja am na ñu koy ñu ko moom mooy téere bi nga xam ne it kuñ ne atte bi nga atte foo ko teg nga ne ci alxuraan laa ko teg alxuraan nee na booba atte amatul appel wéy na yàllaa ko wéyal yàlla mi moom lépp moo wéyal atte boobu lu wér la waaye ku ciy liggéey it bu ëllëgee dana am lu kenn dut am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne su fekkoonte ne des na añaane kenn ñaar ñi daal xay na lay doon ki nga xam ne daa xam lu alxuraan ba xam ca lam ca mën a xam di ko xamle guddi ak bëccëg muy ab liggéeyam kooku jar naa añaane ndax la muy nar a am bu ëllëgee jàll ñal mosa ci kañaan wala koo xam ne it daa kër-këri ci lu lew ba am lu ne gàññ di ko di ko dundale wooteeb suñu borom guddeeg bëccëg it nee na kooku bu añaan dee jar añaane jar na añaane ndax la muy am bu ëllëgee yàlla jaarale na ci lam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it lu mu wax yàllaa ko wax nee na su ëllëgee nit ñi ni ñu rawante ci alxuraan fii ne la ñuy rawante bu ñëpp maase dem aljanna sax ndax kenn ku nekk dañ lay tareloo li nga ci man foo yam rek fa la sa daraja di yam ci aljanna kon du ay caaxaan ci ab jullit ku ko bëgg a caaxaaneel jullit yi it yaa ko bëgg a caaxaaneel waaye jullit yi ñoom seen bakkan lañ ci nar a teg lañ ci teg nar ko cee teg bu ëllëgee ndax ëllëg moo tax ab jullit di xëy xikma boobu sëriñ bi mag bi di wax di naan di ko leeral wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugal ci loo xam ne day jege lool ne adduna mooy kasob ab jullit waaye al waaye mooy ajjana yéefar daf ko leeral ne nit ki lu ko tee dem aljanna gàllankoor la ci moom moo raw kaso sax ndax kaso nit da cay mas a génn waaye yéefar it li tax adduna di aljannaam aljanna sawaraam adduna di adduna di ajjanaam sawar la jëm bu ëllëgee te nit ki lu ko tee dem sawar rek noflaay la ci moom lu dox diggante mu dem sawar rek noflaay la gon la ci moom yàlla it wax na ci lammi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla war dara waru ko ci jaamam yow waaye warlu na ne kii yëngu ci alxuraan tey jëfe ay ndigalam du réer fii ci adduna saa su nekk dana xam fa muy teg tànkam luwaay yi nga xam ne ñooy tënk nit ñi di man la àtte lii ak di ko tële alxuraan du ci bokk kon jullit bu ci tegub tànkam du dem mukk ba ne nu may def ci lii saa su ne dana xam nu muy def te bu àllaaxira lay lay raw loolu abdullah ibnu abbas moo ko nettali teg ca ne ku fi ne ñukk alxuraan wan ko gannaaw perte na àdduna perte àdduna mooy li ko fi taxoon na ñëw xamatu ko bàyyi na ko dem ci leneen te temps bu àdduna mooy defar bu ëllëgee àllaaxira kon ku ñàkk àdduna temps ñàkk na àllaaxira lu bari yàlla nu yàlla musal ca loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu mujjee bi mu mujjee wax ak jullit yi ci ñëpp fekke ko nee woon na mën naa am ren ngeen may mujj a gis fii ci barab bi keroo la aaya bi ñuy wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama wàcc ñi yàlla déggloo ay waxam te ñu taqoog yeneen ci bi lu yàgg te ku yàgg ci fu tàng dangay tàng ni ni foofa ni ku sedd di sedd bu duggee fu sedd yàgg fa am na saxaabi bi ñuy wax abu bakrin siddiq ay rongoñam dafa ñëw ci ab dënnam mu ne lu mat moom wàññi ko rek ku yéeg ba ca njabootalu garab mënut a def lu may wàccaal ndax amatul fu mu jëm kon yëf yi duutu yàgg yaari weer lañ ko teg ku tedd ki làqu tam xarit ak safar mu xaram safar waxoon na fa ni maa ngi leen fii bàyyi loo xam ne su ngeen ko su ngeen ko jàppee mooy ko dara du leen jaaxal lu ci ne da ngeen ci am fu ngeen ci jaar génn kenn du leen mën a dara it ba max du leen tax daanu puus di leen tax daanu waaye baat bi mu jëfandikoo nag moom la jullit yi war a dégg iñaa sa samtum bi iñaa sa sam mooy mooy mooy am na nuñ koy defe mooy ku duggoon ci teen tey daanu ca ñu di ko génne kooku jëruñ ñu ne ko jàppal ci buum gi bu xamee ak buum lu muy jëriñ rek xam na ko moom tànk ak loxo yépp lay jàppe rawatina nag ñu indi ko ba teen bi xaaj li féete kaw ak li féete suuf tolloo mu dégg ñi koy génne naan maa ngi tàmbalee toq moom jëruñu naa ko jàppal lu mu ngoyoon ba muy départ lu ko ngoy lu ko raw lay lay ngoy loolu mooy ngoy nee na woon su ngeen ngoyee ci alxuraan du ngeen réer du ngeen tarxiis te puus du leen tax daanu ëf du leen yóbbaale yàlla na ci alxuraan ci aayaat yu bari yéen nit ñi nag yaa ayyuhan naas boo ko déggee waa Màkka ñoo ci ëppale ak ñi nga xam ne guñu ma ay jullit loolu saa bu jamono boobu dellusiwaatee ñu nit ñu xaw a mel noonu am rek yaa ayyuhan naas day walaabal ci ñoom mu ne yàlla dimbali na leen jox leen aw lay muy alxuraan boole kook nuur mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na fenn muy wax ne qad jaakum min allahi nuurun mu yonente bi wa kitaabun mubiin fii qad jaakum burhaan mu yonente bi wa anzalna ilaykum nuuran mubiina yàlla nag ne ñi ko gëm te fekk ñi ngi laytaayoo gëm yàlla li alxuraan di wax lépp ñu gëm ko te fas ko yéene mooy gëm li yonent bi di wax di ko ci leeral danañ tugg ci yërmande suñu boroom ak ngëneelam te su boobaa lam leen di jural mooy daf leen di joxañ siraatal mustaqim te siraatal mustaqim ku ko wàccu dugg aljanna yàlla nañ ci yàlla boole am na fu muy wax rek ne alxuraan ji lu waaye jub-jub te gisagu ko woon jëfandikoo gu ko woon des na ak njubam des na waaye su laalante alxuraan lu néew néew dana gën a jubaat dana xam ne jub alxuraan moo xam fam nekk moo xam fam cay tege te ne alxuraan it luñ ci mën a teg jullit yi bu mu leen metti ndax seeni jëf buñ ko ci tegee bu ëllëgee ajran kabir lu yàlla ne lu bari la wala lu rëy la nit mënu koo xiyaas lu mu ne lu tuuti la sax kenn mënu koo xiyaas waaye am na fu muy waxee nag foo xam ne fii loolu la sëriñ bi santaane foofu la ndigal sëriñ bi ñëwee yàlla moo wax ci al moo wax ne yàlla moo wàcce alquran jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran di faj lu nekk bokk yi alquran di faj lu ne lu noppale ci ab jullit la ab jullit saa bu ñu ko bundu xataalee bëgg a dox digganteem ak jàmm na fab alxuraan doxale ko digganteem ak kookee ko bëgg a xañ jàmm jànjang jaaxaan lay mujj def moo tax ñii alxuraan toll te ñi dajawoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama xamoon dooree alxuraan bi yàlla bi leen yàlla waxee ne su wàccee woon alxuraan ci aw doj lu doj wa rëy rëy dangay gis muy fet di ga di golliku di daanu ba dootoo ko xàmmee ak suuf si ndax diisaayu alquran law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyati illah wa tilka al amsal nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun saxaaba yooyu li taxoon li mokkal alquran léegi ci jullit yi mokkul fi alxuraan ca booba diisaayub alxuraan lañ xamoon ba tax buñ ca jàngee fukki aaya bala ñoo jàngaat leneen dañuy fexe ba tàmm lam leen di digal bu dee lu muy digal ba tàmm ko ba miin ko su dee lu muy tere la ca saasa ñu bàyyi ko te nattu ci seen bopp di jëm fañ ko doon defe ba seen tànk di dam ñu soo ko jànga jeneen fukki aaya waaye nag mbokk yi lañ la taxoon ñu gise jàppe ko noona dañoo xamoon ne huwa alfaslu innahu la qawlun faslu ma huwa bilhazl alquran dëgg la du fo du ay caaxaan du lu ñuy këll-këllee moo taxoon ñoom ñu tegoon ci seen bakkan am na xare boo xam ne ba mu jàllee ca la ñu waxtaane ne nañ ko bind ndax lii su amee su dee amaka amaat léegi te alxuraan jóge fi fekk dogal suñu boroom jiitu na ko xare ba daal ñëw ñu rey ca jullit yu bare bare bare ñu ma ko alxuraan ñu ne buñ ci gaawu jóg rek bu lii dee am léegi te alxuraan jeex def ca jéego yu am solo ba alxuraan taxawaat moo tax ku ci masaana ab kaamil nii ñu wax ne kenn ci ñi Sëriñ Tuubaa yaroon doxin woowee la topp la daan toppandoo fu ñu ko mos a joxe ab kaamil daf koy kaalaw waale ci kaalaam yanu ko fu mu jëm jëm ak moom suñ ko bëggee wax loolu amul mu ne leen xool leen kii ma yanu nit ñi xool xool duñ gis lu mu doon ndekete alxuraan la yanu moom la leen bëgg a junj suñ ko bëggee def looloo xam ne noonu mu ne xool leen ki dox xool leen ki ma yanu ngir yàlla xool leen ki nekk sama kaw ñuy wéeri wéeri nekk alxuraan la yanu sëñ bu mag bi am na ko ko jox mu. jóg taxaw waa ji àgg suuf jox ko ko muy nangu kooku yaare loxoom taf ko ci lënn bi ne ko ah digal nga ma tere nga ma de moo tax ñam jiitu woon ci seen loxo moom noonu yàlla yi dañ leen dañ leen a ragaloon ndax lañ leen ragale woon mooy kii ñu yor muy alxuraan soo bëggee xaj nit ki alal mu ne jàngoon naa ci alxuraan maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaqin lu nit am na ko téye li yàlla li yàlla yor rek moo ko mooy mooy dara mu ne su tax xañ nit ba du am dara yàlla mooy joxe ki gëm alxuraan day gëm loolu moo tax kenn mënu ko tiital ci dañ lay xañ alal soo ko bëggee rey it di ko tëkku yàlla nee woon na ci alxuraan afa in mitta fa humul xaalidun soo ma reyee it balaa yàgg nga fekk si ma garaw reyal bu ko bu la ko jaralee afa in mitta fa humul xaalidun moo tax ñi ko daan dund dëgg noonu suñu borom daf daan wàcc ngir song leen ndax dañ koy mën a xañ lu mu dox jëm di ko wuti wala nga jële ko fi dañaar yépp ab jullit di ko faale moo tax saxaabi bu ñuy wax Rubaa ibnu Aamir waxoon na buurub Furs Furs tey mooy Iran Boston ne ko ba ko buur ba laajee alxuraan yi ngeen di làng-làngee lu muy jariñ daf ko ne alxuraan mii ma yor moo génne jaame yàlla yi ci jaamu kudul yàlla dugal leen ci ngirum jaamu yàlla moo leen génne ci xat-xati àdduna yi doon am di ko xalaat bay am stress teg leen ci yoon wu leen di may ndam fii ci àdduna ak àllaxira waaye moo leen génne it ci diine joo xam ne jii nangami at yu nekk ñu defaraat ko soppi ca lañ ca bëgg a soppi dolli ca lañ ca def lañ ca bëgg a dolli buur ba ne teg di ko déglu ba mu yàgg ay rongoñum dikk buur li mu toll ak li mu yor ci alal ak li am ci doole ab jullit boo xam ne léegi tey sax mu xaw a jëm ak mag jàkkaarloog buur ne faj fajaaral woon ko ne ci jaamu yàlla yi nga bokk kenn nga ci jaamu yàlla yi rek loolu alxuraan rek moo ko mën a tegtal nit fit wu dëgër moo tax koo xam ne dañu koy déglu fan yii am na lu mar a wax nit ñi ndax bokk yi su fekkee dañu ne nañu génne gone yi ci mbedd yi kenn duutu yalwaan loolu moom kenn mënu ko bañ rafetlu ndax ku ne jàmbat na ba tey gis gone guy yalwaan ci mbedd ñu du dongo nga ne ko daara joo nekk mun a daara yi diw nga ne ko foo toll du xam foo toll sax lu muy teg waaye nag am na raxas yoo xam ne day mujj fukk bool suñ ne cas ab sëñ daara moom dugal ci barab ñu di ko yët añ ak reer tas nañ daara am te bokk yi daara su fekkee yóbbuwuñ ca gone mu di fa jàng ku fay jàng xanaa du mag mi nga xam ne soxla dab na ko mën a muy kër kër di wut lu mu yóbbu wala lu mu faje ay këram te yonent bi moo ne woon wax dani Sëriñ Tuubaa way ko wax dani mu xamsan xubayla alxamsi kama bihi amara xayru ins awaluha shababu qabla alharam wa misluhu sixatu wa misluha sixatu sixatu qabla saqami thalisuha alginaaw qabla alfaqri tudd na ca alfaraag qabla aljuxl qabla alsuql ak alxayaatu qabla almawt bu fekkee yóbbuñ gone ci daara ji ñu dafa jàng di fa jàng alxuraan ana ku ñu fa yóbbu xanaa doo fekk nit ci biir këram yor ab sikkimam ak waa këram nga ne ko cas ne ko da ngay dem daara lu ci nekk ci gone lañ koy jaarale suñu bëggee mu dox waaye lu ñu bëgg a yàqit bu ñu ko jaaree si gone dana gaaw lool loola nag pexe amu ci ndax doole moo koy def te kilifa daf caa àddu kilifa réew mépp moo ne xeex bi ñuy xeex ak gone yi ne ci mbedd mi day wéy gone yi ne ci mbedd mi nag génnewuñ ca genn gone waaye daa mel ne daara yee leen tax a jóg ndax jàppaguñ boroom kër nekk lu tax sa sa doom di yalwaan waaye dongob sëñ daara bi lañ jàpp bu dul woon ak cër bi nga xam ne joxas na ko ko cër bi mooy laan benn dogal suñu borom ñaareel ba it faw ñu jox sénégalais yépp cër ndax wax nañu téeméer boo jël juróom benn fukk ba ak juróom nangu nañ mu toog fa mu toog ñëpp xanaa dofuñu waaye nag doole dañu koy yërëme ñi néew doole dañu koy jaamoo yàlla dañ koy wuute ab yóbbal bu ëllëgee ndax amul kenn kuy dund koo xam ne yàlla du ko teewal fi kanamam mu jàng ab téeréem ci kanamam yàlla amul soxla ci fonction bu mu yoroon buñ nee bu gone du nekk ci mbedd mi xanaa danañ génne waale ci mbedd mi jigéen ñi nga xam dañ leen di jox ay carnet ñu taxaw ci mbedd mi xaa dañ leen ci daañu leen ci boole waale bu fekkee mbedd mi lañ bëgg mu sax lii di set goo xam ne gi dañ koy xool mu ñaaw ci gët lii di pas set goo xam ne day yàq pas-pas da koy tilimal xanaa da yàlla nañ ci boole waale jigéen ñi rek su ko defee mu nekk àtte bu maandu nañ ci boole waale jigéen ñi taxaw ci mbedd mi ñu di leen jox ay carnet su boobaa àtte bi maandu waaye su fekkee ay gone lañ jël yóbbu leen denc leen bàyyi fa ñooñu àtte bi maandootu te it bokk yi suñ teree yalwaan it yàlla miy bind di joxe am na ñum waajal ñoo xam ne buñ leen saraxut duñu am bi muy wax ñi ñuy jox azaka daf ne woon innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin ñoo si jiitu faqir mooy kan mooy koo xam ne soxla na ko lool waaye am na mbañum rus ak kersa te mënut a jóg di wuti kooku recensement moo koy xamle waaye masakin miskin mooy koo xam ne mën naa jóg moom naan jox leen ma ak saraxe li ci ne ci ab yoon suñ ne bu kenn saraxeeti te yàlla ne woon kuy saraxe na nga ko jox diw ak diw ak diw kooku nag dëkk alxuraan la tudd ni alxuraan li muy wax mënut a nekk te bokk yi mbedd yi itam am na kilifa gu mag ci réew mi nee na suñ ko raxasee ba mu seet ndax touriste yi mën a dikk waaw touriste yi ñëw ci mbedd mi ñoo gën jànkati alxuraan yi ci mbedd mi touriste yi touriste touriste boo ko déggee touriste mooy saaih mooy kuy taxawaalu rek ku jëmul fenn lu mu romb mën na faa yantu di ko xool wala mu di ko foto ak di foto ak moom soo waxee ñu ne dañu yor seen xaalis di ko di ko lekk wala ñuy bëgg a tumuranke ak tumuranke ku ci dox jëm lay wuti àll ba di ko am loolu ay nax la am na ci ay dëkk Sénégal yoo xam ne boo fa demee ay kër lañ fa wut di fa fat suñ doom yi ak suñ jarbaat yi ak suñ sët yi te loolu yàq nañ ci passeport Sénégal yépp ndax léeg-léeg nit ñëw ne la dama bëgg nga tuubal kii may ma ko nga ne ko ana sa baay mu ne mi ngi nii ñu ne baayam loo ci xam mu ne waaw waaw ndax kii moom dafa bëgg dafa bëgg du ci islam te moo ne bu ko ab tijaan ñaanee mu lànk ne duma may sama doom tijaan ba di ko doon noppi di ko may tubaab boo xam ne xamul fu mu ko jëmee bu fi jógee foofu it jax-jaxal na ci pas-pas nit ñi ba kenn xàmmeetul loo ciy jàpp ak looy bàyyi bu dee tiyaan mu ne doo may sama doom murit te bu tubaab bi ñëwee ànd ak doomam daa bëgg a tuub mu ne nañ ko ko may ndax mu dugg ci lislaam ki newul ci lislaam ay maamam ba tey nag mu ci gën a tubaab bii bëgg a dugg si alal rek kon touriste yi gën a ñëw yay taalibe yi ci mbedd yi ak it ñu jële ci rajo yi ak télévision yi publicité yi ñuy def naan ku bëgg a faj sa soxla boo dee jigéen te doo si jële am yooyu ñuy jaay itam nañ ko fi jële nañ ko jële ci bitig gi atte bi door a maandu bu fekkee lu salte rek la taalibe dañuy saltal mbedd mi ak sëñ daara yeeg alxuraan ju bari ji nañ fi jële wàlle jigéen ñooñu jële wàlle publicité yi ñuy wax ne ku bëgg a faj sa soxla te doo ci jële dara doo ci jële dara la ñuy wax ah kay léeg-léeg sax nga dégg ñuy politique naan adduna rek lay am déedéet amul lenn lu am adduna te yàlla àlla lépp lu tàmbalee fii àdduna bu ñu ci tegee bët rek yàlla dana ko réglé bu ëllëgee am na nag ñu jafee xàmmee alxuraan leeraloon nañu ko te alxuraan yàlla wax na ne ku teg ku ca teg sa tànk dara du la jaaxal fii na ba uma xablakum am na fi mu wax ci alxuraan suratu zumar ne léeg-léeg nit tollu ab diggante tiit lool jàq lool dem ci ku mu yaakaar ne ko ñaanal ma yàlla nangam waaye su ko amee dana ko da ko nan wëng fàtte yàlla ci boppam fàtte kam ñëwoon ci moom ne ko ñaanal ma yàlla ndax lan jekk jekku na léegi aaya bi mooy ida wa ida massa al insanu durrun daa rabbahu muniban ilayhi thumma ida xawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilayhi min qabl wa jaala lillahi andaadan li yudilla an sabili waaye bu ñu la laajee mbirum kooku yàlla tontul nañu ba noppi nee na qul tamataa bi kufrik kufr du yéefar dong ko moom waaye ku yàlla defal lu mu ko war a sante santu ko kaafir la kaafir mooy weddi dara rek weddi xéewal yi ko yàlla defal weddi na yàlla la ñaanoon jaar ko ci diw weddi na yàlla la tàllal ay loxoom te yàllaay maye yàlla ne ko innaka min ashaabi naar am na ko laajoon sëñ mag bi ne ko gisul ci alxuraan fu yàlla waxee ne firawna dem na sawar sëñ bu mag bi ne ko dama jàng suratu Ghafir muy jàng ka jàngaat gisu ko mu ne ko tàmbaleel wa yaa qawmi maa lii ad'ukum ila an-najaati wa tad'unani ila an-naar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bi ma laysa laka bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizi al-ghaffar ba àgg ci wa anna al-musrifina hum ashaabu an-naar ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad mu ne ko gisuma foofu turu firawna sëñ bi ne ko demal jàng suuratu huudin alayhi salaam muy jàng ba àgg ci wa anna al musrifina jàng na wa anna al musrifina hum ashaabu naar jàng fa inna firawna la ala la aalin fi l ard wa innahu la min al musrifin mu ne ko wéyal muy jàng ba àgg ci fattabacu amra firawna wa ma amru firawnu bi rachid yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaar wa bisa alwirdu almawrud kon lépp loo xam ne nguur moo koy tëral bu bëggee tegg aw yoon rek dañ koy dañuy delloo si nguuru Firawna naka rek dendal la ndax Seydina Muusa daa nekkoon fee di woote yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na mu taxaw fee beew lool ku ne yàlla mu sàkkal la pexe ba bis mu taxaw waxoon nañ ko ci biir weesu ne moom mooy yàlla waaye saa su nekk maa am lii wala maa am laa day dox ba mu yàgg nit ñi xam ne kii kat du kook ndax jàngoon nañ fi aaya keroog fa aw xidri yaa haamaan aatil faj'al sarha ku maandu ku nekkoon ci ay conseil am laaj na ko bis ne ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waqad jaakum bilbayinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum badu alladi yaidukum mu ne yaa qawmi lakum almulk alyawm maa alimtu lakum min ilahin gayri ana rabbukum alala yàlla ne fa axadahu llahu nakaala al axirata wal ula ku naan nañ ma defal nangam tey yàlla weddina boppam te benn bis dañ ko takk ba mu dëgër mënu dara ñu diw ko xorom ne dañu bañ mu yàqu dugal ko ci ak kees di ko seetaan mu ne ñaw weñ yi daal ci bëtam du ca man dara moo tax gannaaw doole moo koy def te kilifa wax na ci des na ko sédd ci rëb kilifa waaye kaamil yi sëriñ bi santaane bu altine ku mën a jàng alxuraan lu mu néew néew bu jàngee alxuraan ba noppi na jàpp mbooleem tur bu mu dégg mu wax ci daara yi dara wala ci suñ daara yi dara wala ci dongob daara dara lu dul noona na tudd turu kooka gis boppam alxuraan ci kaw loolu rek la ab jullit am yonent bi leen adduaawu silaaxul mu'min ab jullit toj la wuñ ko lakk loo wuñ ko agun tojloo guñ ko lakkaloo guñ ko reyloo guñ ko agun waaye ñaan lañ ko def loo yàlla nee na woon ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani falyastajibu lii wal yuminu wal yuminu bi laallahum yarshudun am na feneen fi mu waxee ne yonent bi moo koy nef li wa qaal rabbukum ud'uuni astajib lakum ud'uuni astajib lakum dara dox ci diggante bi ñaan leen ma rek ma may la te lii ñu ko lii ñu koy ñaan bu yàlla doon am intérêt intérêt am daf cee nekk ndax waxam ji jaar ci lam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kéemtaan gi ci nekk dëgg-dëgg wërta mën a naax saaye nii rek ci kaw ñi ko séqal ay néew doole lañ sësuñu fenn furut ci yàlla rek waaye nañ gis yàlla seen borom seen bopp ndax yonent bi nee na ci ay xadiisam ñaan moom yépp la yàlla di nangu rawatina ku néew doole nag rawatina ñu tooñ ko boole ca amma yujibul mutarra ida daahu wa yaksifu suu wa yaj'alukum xulafa al ard a ilahun maa Allah ayaat yooyu moom la kaa ngi daan daan tënke ba ba xataxul bal aksaruhum la ya'lamun bal hum xawmun ya'dilun qalilan ma tadhakkarun ta'ala Allahu amma yushrikun qul haatu burhanakum moo tax maa ngi koy fàttali foofu laay jeexale nañ jàng alquran bu altine ci sëñ bi digle tey wéy di jàng alxuraan tey jéem a dugg ci gëstukaay yi di gëstu mboolem turu ku ci bokk buñ ko yërëm buñ yërëm kan ku ci yëngatu bu fekkee alal moo ko ko jaral wala bëgg ñu ko tagg wala bëgg ñu ko gërëm ñun nañ wut ngërëmul suñu borom ak tagg suñu borom ak ngërëmam am nañ ci yan bu diis ndax alxuraan tase nañu ak moom te suñuy jamono lañ tojloo guñ ñu reyaloo guñ ñu waaye nañ ñaan moom yonente bi ko santaane woon te kenn teree gu ko it nañ jàng alxuraan bu baax moo xam ci jumaa yi la wala ci jàkka yi wala ci kër yi waaye tur yooyu moom lañ leen fàttaliku moom te jàpp leen def na suñ fa li lu Mbakke defoon ba mu demee Makkal Mukarrama këyit woo xam ne daf koo bind ñii ne fii la ko bind ba muy laas dem ñii ne foofu la ko bindee woon ndax am na foofu jot képp koo xam ne xam na sa tur bind na la ci këyit woowee buy ñaan dana tudd sa tur ñim xamut it te wóor na ko ne duñ ko fa fekk dañuy ñëw gannaawam it nee na ak ñi ñëw sama gannaaw ñëpp ak ñi ma jiitu woon te fekk ma ren yitte jooju nag jotaat na fii mu nekk te lim bu baree noona bokkut yaakaaruma ñi xëy alxuraan ci Sénégal toll nañ noonu nañ bind seen tur ñoom ñëpp te jàng alxuraan bu baax a baax a baax te rawatina nag njël quraanul fajr yàlla tudd na ko ci alxuraan aqimi salaata li duluki shamsi ila ghasaqi leyli wa quraan al fajr inna quraan alfajri kaana mashhuda te it suñ koy jàng it ñu ñaanaa la ca kooku ñu tudd aw turam ndax day xeex alxuraan ak dongo yi nañ fekke toroxtaaneem ñoom nañ fekk mu faatu faatu gu metti faatiin wu metti moo xam da dugg ci otoom lakk ca ba kenn mënatu ko génne wala dafa dal ci dara ba pompier yi am ci waxtu bisub lëm duñ ko mën a génne wala boog këram daanu ci kawam nañ ko ci fasaale amul yërmande يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين